D'accord. Après, là, vous êtes euh, Aussitôt, ah, oui, actuellement, je suis à la, à la mairie de, de, de, Dakar. de, Dakar. Effectivement, conseiller technique. Mm -hmm. Voilà. Là aussi, je, là aussi, je voudrais vraiment faire des précisions. C'est compliqué. Les gens essayent tout le temps de me décrédibiliser. Par exemple, quand j'ai eu des soucis, le maire de Dakar, euh, comme tous les Sénégalais, sont venus pour recruter moi. Euh, comme tous les Sénégalais jàppale ma le maire m'a recruté après ñu ma doo fayee à un certain moment si on m'a viré un salaire après on a arrêté léegi les gens font des manipulations aussi c'est-à-dire ils veulent montrer coûte que que bon je dois démissionner de Dakar que je suis de suis cela je suis cela loolu yëpp c'est pour me décréditer parce qu'on a cherché à me mettre à Pastef man nëbbatuwuma j'ai dit les gens à ce que léegi comme Barthélémy ne monsieur Barthélémy Dias n'est plus avec Ousmane Sonko on veut me traiter loolu moo tax ma ne la man yàlla rek moom ma mën a jàppale boo loolu loolu laa la wax mais est-ce que vous avez vu les manipulations que les gens sont en train de faire pour ça parce qu'ils veulent forcément me rattacher à Pastef ah dañu bëgg a influer pour que Barthélémy Diaz libéré séparé wu de de toi vous-même vous avez vu ça mais la la mairie de Dakar c'est une institution républicaine non du loolu xam nga ma ne la la manipulation c'est ce que les gens cherchent à prouver parce que depuis le début je cherche à me rattacher avec Pastef pour décrédibiliser mon témoignage en justice donc ce qui fait que man tey bu ma nekkee si Barthélémy Dias malgré qu'il soit en désaccord avec Pastef on veut créer des manipulations pour que ma jógee foofu pour qu'on dise effectivement on vous avait dit ça c'est ce qu'on voulait moi je pense que les gens doivent arrêter ça waaw ah, sincèrement. donc vous officiez toujours à la à la à la. oui je suis salaire débloqué nañ ko. non non ils l'ont pas fait mais il y a pas de souci moi ça ça y a pas de souci de toute façon euh, man comme je man c'est un grand frère moi je ne suis pas de taxaw Sénégal mais nit bu demee ba defal la conférence de presse pour te défendre man pour man jàpp naa ne euh, même boo àndul ak moom politiquement il faut reconnaître ça man vraiment je lui reconnais ça et je le remercie tout le temps pour ça. alors yow yaa ngi ci terrain politique bi. waaw vous n'êtes pas de PASTEF. oui vous n'êtes d'aucun autre parti. que du mouvement bi nga. bi nga bi pour un Sénégal juste donc yow amuloo benn lien ak ak Pastef. vous n'êtes pas sympathisant de Pastef aussi. ça aussi il faut préciser. Mm-hmm. xam nga madame euh, li nga expliqué sànq la xam nga boo amee souci ñenn ñi bëgg laa xeex ñenn ñi bëgg laa jàppale man gis nga man même sama page Facebook bu ma publier mbirum politique da ngay c'est déjà un sondage da ngay gis ni y a que 200 personnes peut-être ñuy like. mais quand je publie un truc boo xam ne c'est général j'ai peut-être cinq mille likes donc loolu seulement ça te montre que man ñi ma topp peut-être Pastef la ñu nekk vingt 90 pour cent donc man les gens peuvent dire nag ce qu'ils veulent wax dëgg yàlla man si mbir mi yàlla laa si seet te ñi ma amal rapport te ñu nekk Pastef du ma mës daw suñu comme ni ma la wax man lu ma retenir si ba si si Bassirou Diomaye c'est des conférences de presse qu'il a organisées pour me défendre pendant que certains ternissaient mon image. Donc si l'histoire fait que Manak Omom, on est proche, moi j'assume entièrement cette proximité. ragaluma si dara yàlla rek laa si wal ma ne la du ma nëbbatu yàlla di ñeme nit ñi du ma wala du ma ñeme yàlla di nëbbatu nit ñi y a yàlla rek laa si xool léegi y a ce qu'on peut prouver ce qu'on peut dire les gens non qu'à dire ce qu'ils veulent